ay kii di première dame bu Sénégal di Marième Faye Sall niki démb nag mu doon jànnoo ak kenn suñu naataango ak taskatu xibaar yi doon sekk ak moom laaj ak tontu mu nekk nag génnam bu njëkk moom première ay nii di sénégalais nag kenn ku ci nekk yëkkati nga ci ay kàddu wax ana naka nga ko gisee. waa génn bi moom yéex na moom yéex na waroon na koo def avant moom waroon na teel a génn wala heure bu président génnee wax moom it mu génn wax mais moom it dañ koy gëj a dégg kenn du xam si lu mu nekk affaire dof beeg yooyu moom sénégalais moom seen yoon nekku si moom sénégalais moom dañuy wax rek man loolu gëwuma ko moom. mais génn bi moom war na di génn di wax di leeral askan wi di wax parce que comme jëkkëram moo fi nekk nekk président moom i war na di génn di leeral nit ñi daal. waaw fondation bi moom baax na baax na parce que dëkk bi dafa metti dëkk bi dafa metti génn war a jàppale doomu aadama yi moom bu ko defee da koo war a def waaw dëkk bi moom dafa metti metti na trop daal. mais ci man ni ma ko jàngatee. wax na lu rafet quoi nit ku dal la wax na ci olof tamit mais ñu sañoon ñun tamit ah wax dëgg yàlla ñu gën a jàppale Sénégal yi ci beneen côté bu bokkut ak Marème fay Sall ni mu koy defee quoi. ñun sun ñu bari dañuy jóge fii di dem di faju bitim réew ñu liggéeyal na hôpital yoo xamante ni dañuy fajoo fii moo gën ñuy dem di faju bitim réew man mi wax yow bitim réew laa nekkoon instant bi maa ngi Sénégal nii dematuma fen mais wax dëgg yàlla soo demee fii ak fii nii c'est différent lu bëree baree bëri suñ sañoon nag moom gën a jàppale Sénégal ci beneen côté que ñu nuy may jën quoi ñu jàngal na ñuy nappe moo gën waaw wax dëgg yàlla li def nii ñaawluñ ko mais bëgg nañ ko mu def ko ci beneen facette bu bokkut ak mu koy defee quoi ñu liggéey hôpital boo gisee Ouest gi manqué na lu baree baree baree bëri ak yu baree baree baree baree moo gën ñu ñuy jox xaalis ak naan ay dimbale na cent millions def naa lii def naa lii mais dafay hôpital def ay marché jàppale nit ñi bu baax a baax moo gën ñu jox nit ñi di leen may jën quoi jàppale leen moo gën ci loolu ko quoi. rafet rafetlu naa ko ndax Marème Faye wax dëgg yàlla man moom xëy na xamante wuñu wala miinante wuñu waaye ci la ma ci la ma xam ci moom feeñu dëkk muy Saint-Louis wax dëgg yàlla am na ñun ñoo xamante ne wax dëgg yàlla defaluma ko mais mi ngi def ak ñoom ay teraanga yoo xamante ni bëggul ku ko wax bëggul koo xam nit ki nag moom da koy waxal jukkoom wax dëgg yàlla ndax mosuma ko gis mu génn waxal nit ñaaw wala mosuma gis mu génn waxal nit loo xamante ni lu kii la. lu vulgaire la li ma xamal mooy lépp lu muy def it bëggul koo xam ndax man ndargee ne xam naa fi ñu bare ñoo xamante ne xam nga Marème Faye mi ngi seq ñoom teraanga te bëggul ko wax ñoo xamante ne ñoom bu ñoom bu ñëwul wax ma ko Marème du mooy sol daalam di ko wax te wax dëgg yàlla mi ngi koy def ci sutura ak teraanga wax dëgg yàlla loolu laa ko xamal. ñii di sénégalais yi nag ñoom ñëpp di rafet du rafetlu génnuk Marème fay Sall donte sax xamle nañ ne daf ko yéex a def ñeneen ñi ñoom ñi ngi sàkku ci moom mu taxawal ay bërëbu fajukaay ngir rekk gën a taxaw wi.